nag tey sunu làmb fële nii xëy dooretu ko yëglikaay ba nag tey te mu xëy andil ñu ko mooy Balla Gaye dër bu géej way mu mel ni ki nag yëglikaay ba daal yëglikaay bi sunu làmb xëy na jàpp ne de moom Balla Gaye mooy bête noire ñi nga xam ne daal mësuñoo daanu ci làmb wala boog koo ca xam ne daal yow yaa ngay def say mbir di avancé nee na Balla Gaye numéro 2 ñooñu lay bañ a gis ku mu ci mën a doon daal ba mu jaamaarloo ak yow daaneel na la mu jox la ko sunu lamb xëy tey ñëw di ñu leen limbal ke ca njëkk mooy ki nga xam ne moo di maam góor jóg bu bawal Balla Gaye numéro 2 mooy mbër mi nga xam ne moo ko njëkk a daan dal di ko arrêté ñu yaakaar ne ca la yem waaye yemu ca dafa continuer am na keneen koo xam ne tegaat na ko ca muy koli Faye ma nga xam ne ni moom tamit Balla Gaye numéro 2 moo ko njëkk a jox dafa tal bàyyi séerans tamit bu ginnaaw raay Balla mooy ki ko njëkk a daan Modou Lo bu Parcelles Assainies roi des arènes Balla ko njëkk a daan ki nga xam ne nii moo di Yaxya Joob Yékini tamit Balla Gaye numéro 2 mooy ki ko njëkk a daan suñu làmb xëy tey ëllëg ñu mel ni ki noonu ci gëstoo ki nga ne moo di Iba Kane mel ni kon yëgle gaay bi ñëw na ci xëy tey ñëw ëllëg ñu Balla Gaye numéro kenn koo xam ne moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Eumeu Sène bi nga xam ne daan na Balla Gaye yëglikaay bi ne moom Eumeu day est-ce li des si carrière am du ci am ay jafe-jafe ndax la ko ko bëgg a andil nag mooy maanaam daal ami ca bokk na ca ak mbër yoo xam ne ne dootul bëri ak ñoom maanaam xaritoo ka nga xam ne ne dootul bëri ak moom mooy Balla Gaye numéro 2 ñu ne kon kooku moom mooy tul nekk adversaire am waaye yemuñu ca de ka nga xam ne nii moo di boy na Ama Baldé ak Gris Bordeaux ñoom tamit nekk nañ bëri yoo xam ne Eumeu Sène mënatul ak bëri ak ñoom wala boog mënta bëri ak ñoom moo tax yëg likaay bi jàpp ne Eumeu fi mu nekk nii moom mbaaru kon la des ci ay mbiram dana ci ak bëri ay combat yëg likaay bi ni suñu am ba xëy tey ñoom andil ñu ko keneen koo xam ne ni moom combat la bëgg ba xëy am ñu muy yëg muy bakala na daal li la dëggee bu géejewaay ne ay bàqaar lañu ñaar ñuy ragal ñii ne na booy wëri ragal jàppal ñaar ñii ñu ne ko lu tax dañ koy daw boobu ba tey nanguwuñu maa jël jàmmaarloo ak man bëri ak man paka laa xëy tey di wax lu mel ni ki noonu ngay nag li ambales daal moom paka la nee ki nga xam ne nii moo di des wala muy amal neex wala Garga Mbossé nee na ñii moom bu ñu ñëwee ñu bëree parce que nag comme ñaar ñooñu mu tudd ne na ragal lañu te ñu mu ñoo lekk avance kon nee na ci des moom buy ñëwee dañuy bëree ba mu sax keneen boo xam ne nii moom yëg ci kay bi xëy ni tey ñëw andil ñu ko muy booy naan école Balla Gaye ci Guédiawaye booy naan booy ñang nag moom la mu xëy di wax ginnaaw safar yi ak ñeneen ak ñeneen ba ca géwél ya dox nañ seen doxu ñaxtu di laaj moo di wax loolu moo di Paul bi xëy na ñëw ci moom moom Paul Maurice andil ñu ko mais li gën a moom bu gaa yi génn ca buntu bu mag ba bàyyi làmb moom ca porox ndollu bala jaar maanaam daal ca buntu bu ndaw ba ca la génne bàyyi làmb moom Paul Maurice buñ fa jógee nag dañuy dem fa nga xam ne nii moom mu moo di ca bi nga xam moo di record record moom Lac de moom la xëy seqal ay wax di ko laaj nag mbirum CNG ak li nga xam ne nii mooy ndax mbër mën na ko ak jiite ak yu mel ni ki noonu lan nag moom joxe na ca la nga xam ne moo di xalaatam ñeneen ñoo xam ne gëstu nañ leen mooy wax sàkku xam-xam ak seen bilan bi nga xam ne doy na waa ndax nag saison bi mu démarré fi mu taxawee ren kii moom ñeenti combat la ñu def ñaari victoire ak ñaari défaite yëglikaay bi xëy wan ko nga xam ne moo di àgguko keneen koo xam ne nii moom wala beneen yëglikaay di l'observateur la mu ñu xëy andil mooy ñoo xam ne ci làmb lañ bokk te am nañ ak yoon li nga xam ne nii mooy wàllum yoon muy lig Nicolas ma nga xam ne daal yëglikaay bi di l'observateur xëy na andil ñu ko ci émission Thiès ma nga xam nañ ko fa jëlee ko ndax mel ni ki nag fi mu nekk nii daal mbir ya moom la ko waraloon mooy garab na fee ba nga xam ne defoon na ko yëglekaay bi ñu ñëwaat na ca ginnaaw 24 heures ba mbir ya amee léegi moom la ko gën a naqari mooy mbirum Seydina Fall Bougazelli ba mu yëgee ne daal bàyyi nañ ko wala may nañ ko liberté provisoire rek léegi nag calal nag jàmm jeex na kon moom itam daal day def entamé garab na fee am yëglekaay bi loog sa xëy tey ñëw indil ñu ko kenn koo xam ne loog suñu ci moom muy bébé jën bi nga xam ne daal jàpp nañ ne talaa la boo xam ne day bu wóor a wóor la ci làmb waaye tamit ñëw nañ ci moom ak mbir ya nga xam ne moo ko dab muy am nga nga xam ne am na ko ak wàllum terminal yëg li kaay ne lob su moo xëy moom la mu andi war naa mën a dalal am xel ndax nag ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue la xëy fësal ko per gas nag la mu xëy di xam ne daal làmb ci boppam dana bu corona bi jeexee suqali ko la bëggaat affiche yi gars yi bëgg moom nee na ak yeneen affiche yoo xam des na ay tafaati nag Gris Bordeaux moom daal la mu fas yéene def moom Gaston Mbengue daal mooy soqaliwaat làmb ji waaye ñun daal fa la nag di ñaan moo xam ne bi génn wala muy lim ni ko lay wala kum ci mën a doon daal nu ngi lay ñaanal yàlla la sa kaw di ko ñaan képp ku ne ci prison bi te mérito ndax nag àddina moo mel noonu olof Njaay ko wax de fekk dog jotul jubu weesagul bu kon yàgg maar bul naagu bu ma naagu ndax ku naagu daagu te ku daagu ñu ragu loolu mooy li am yàlla nañu yàlla musal te muccal ñu barke nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen euh, revue de comme ni ñu koy defee chaque jour rek andi leen li nga xam ne moo xew euh, ci làmb ci yi nga xam ne mooy yéenekaay yi fi nekk yëpp te nag euh, dañuy ñëw ànd ak Babacar ci jàngat bi Babacar nuyu naa la chéri Teneng. waaw Aïssa maa ngi lay bëggee di la waa loolu am na chéri Teneng ma koy nuyu di ko ziar Teneng ah di ko ñam ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom yooyu itam maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu internet yi Serigne Moussa Niang ah. waaw noonu la demee Aïssa Euh, Babacar dañuy dugg si li nga xam ne ni mooy waxtaan bi tey nag Iba daal di ñëw andil ñu ki nga xam ne ni mooy euh, Balla ñëw ci jaar-jaaram ña nag euh, Balla Gaye nag moo aay ci ñi nga xam ne ni kenn mosuleen a daan boo xoolee moo njëkk a ki nga xam ne ni mooy Mame Cor daan ki nga xam ne mooy Bathie Seras Coly Faye ba ci Yékini ñoom ñëpp daal moo leen njëkk a waaw mu mel ni kon daal Iba li mu jàng tey mooy Balla daal képp mbër bu ñu ne musul am defet daa mel ni ko aay la ci moom ndax juróomi mbër la indi teg ndax ku ne yaa ngi fàttaliku diggante Balla ak maam góor Diouf ci atum 2005 stadium Iba Mar Diop mois de juin la woon mu daan ko kera te defe naa boobu maam góor Diouf ñi ko mënoon a daan ci làmb dañ leen di compter yaa ngi dégg mu njëkk koo daan Balla nekk ki ko njëkk a daan ñu jóge ci indi bàcc Seras moo ko njëkk daan waxal tamit Iba Mar Diop googu la ko daanee ko li fay mu teg ko ci Modou Lo ba ci Yékini waaw loolu nag moo lay woon nekk rek lamb tëdde noonu sport tamit mu tëdde noonu saa yoo nekkee di reñe di reñe di reñe dina am koo xam ne bés dina ñëw jógee fële mu maanaam mu stoppé la maanaam taxaw la quoi loolu la def nag mu nekk mbër boo xam ne tamit yaakaar naa ne ay capacité am ak bëreem defe naa ne kenn du ko nattableeti quoi moom Balla Gaye numéro 2 waaye ñu mu daan tamit ay mbër waada lañu ndax jamono yi mu leen di daan ñooñu dékku leen bu ñoom jafe woon na trop trop guddi yooyu quoi vraiment waaw. jóge na ci Balla Gaye sunu lamb dem ci ki nga xam ne nii mooy euh, Eumeu Sène Eumeu Sène nag sunu lamb ne euh, li koy xaar dafa bëri parce que Eumeu boo xoolee ci carrière dafa ne dootul bëree ki nga xam ne mooy Balla wala batiku mënul bëree ki nga xam ne ni mooy Ama Baldé ak euh, booy Niang parce que ay Pikinois lañ ñoo bokk fa daal di xaritoo ak ki nga xam ne nii mooy Gris Bordeaux te li ko des itam ci retraite bëriwul kon Eumeu nan la nar a gérer loolu yëpp. waaw du yomb ah du yomb parce que moom xam nga comme li ñuy wax rek tey. Mm, mbër mu mag la def na lu na ci làmb ba déggulaale seneen kon la muy prouvé te dootul bëri waaye nag am na lu ko des ci carrière ndax bàyyeegul defe naa ne tey buñ ne laa Balla Gaye 2 moom moo ko waxal boobu moom làmb dox seen diggante du lu xelal xel xalaat diggante ma Gris tamit def nañ fa courage ñoom ñaar mënatuñoo bëree ndax ñoom ñaar ku ci ne wax ju génne na ci yow kon loolu nag defe naa ne bu dee ci côté adversité la wàññi na ñaari adversaire yaa ngi dégg ndax boo waaw waaw parce que xam-xam nga ama ak kële moom mën nga ne duñ ci bokk ak booy ñaam ñoom duma leen boole ci adversaire am ñooñu ay rakkam lañu mais Gris ak Balla Gaye ñoo nekkoon ay adversaire wu làmbam mu bëree ku ne ñaari yoon tey nag mu génn leen ci listam mook Balla jàpp na ne làmb booleetu leen moo Gris Bordeaux xaritoo nañu kon foofu wàññi na fay adversaire yoo xam ne waroon na mën a bëraat ak ñoom mais nag nit ku ne kilifa nga ci li nga nekk surtout mag mu toll ni mo seen bu toogee ba jàpp ne ñuy dootul bëre ak ñoom raison yi moo tax su keroogee itam dañ koy nangul waaye nag am na mu wàññi ci li nga xam ne nii mooy li ko des ci làmb Babacar dañuy dem seet ki nga xam ne ni mooy pakala pakala tey tamit xëy ci ki nga xam ne ni mooy tafaatin ak la daguère de daal di leen jàppee ay tàppet nag moo tax ñu tax <laughs> ñu koy daw <laughs> pakala de loolu la wax dana lag tafaatin ay ragal la ñu ah. nee na boobu ba tey ñu ngi daw avance am di daw kombaam waaw loolu nag yàgg na si làmb làmb moom xam nga mbër rek ay sa waaw xam naa Pakala gëj naa bëri te bëgg naa bëri waaye li am solo daal mooy loolu waxu mbër la ak mbër yi rek xam nga mbër yi moom des fois ñu classante sànnente xeer yi ragal nga su ma la jàppee a am na fu ñu ko doon xaar foo xam ne xëy na xalaatoon nañ tey ndono yi ki ni ci làmb ñëpp dañ ne woon Pakala la mais nag des làmb ji da ngay jóg jóg jóg bu mel moo am lu la téye ça veut que euh, bokk na ci année blanche yi ak manque d'adversaires yi yooyu yëpp day kii et tamit dund na fi benn defet boo xam ne ni moo girido ak yu mel noonu xaw na ko kii mais mbër la bu nga xam ne bokk si làmb la mais ñooñu ne nag ñoom entre ñoom la quoi dañuy classante parce que loolu mooy tax làmb ji di neex quoi mais ñu ngi ko ñaan mu am adversaire ñaar ñoo ñu lim tamit ñu ngi leen ñaan ñu am adversaire waaw waaw Babacar dañuy jógee foofu dem ca li xam ne mooy record fekk fa Tapha Euh, fekk fa Lac de Guiers 2 Lac de Guiers ñëw waxtaan ak euh, Abou Ndour ñëw ci li nga xam ne ni mooy après Alioune Sarr succession bi waaw waaw kuy doon nag ku muy mën a doon ak kuy jël place baak mbër mu mag lay doon ak yooyu waaw loolu nag comme li ñuy wax rek moom wax na ci xalaatam nit ku nekk nag boo bukkee ci mbir bu ñu si laajee am nga droit wax ci sa xalaat yaa ngi dégg mais lañ la ñuy ñaan rek muy man ak yow ak sama morom ak ñu moom ma ci wax ñëpp ci yëpp ku ciy wax rek yàlla nañu yàlla dimbali ba ngay wax loo xam ne dina nekk luy njariñ dina nekk lu nit mën a dégg parce que Alioune moom ak lu mën a xew waaye ñu ngi ñaan la rek dem bi rafet ba nga xam ne nii comme Sénégal ñu ñëpp a ko bokk mu dem ki kay remplacer tamit ñëw réussir lu Alioune Sarr kon ba nga xam ne nii bu ji dina mën a avancer jëm ci kanam parce que ñun ñëpp loolu Euh, beneen dañuy jóge foofu nag dem si li nga xam ne ni mooy euh, écurie Sakku Xam-Xam euh, ki nga xam ne Abdou tam ba tey def jàngat bi bilan mi parcours fi nga xam ne ñenn ñi am bari nañ fa combat ñoom nag seen i combat demeewul noonu parce que 4 combat dong lañ jot am def ci deux deux victoires deux défaites. waaw mel ni kon ñoom saison bi mu ubbee fi mu taxawee ak corona bi ci mois de mars bi yotu ñu bëri la ay combat car sa quatre combat bëriwul écrit saa ko xam ak ñun dañuy Père Birahim fondateur bi di ko siyaare ko ñaanal jàmm gudd fan ak wér waaw mu mel ni kon daal ñoom itam ah euh, yàlla def na combat yi bëriwul kon corona bu far ñëw téelin mu mel ni kon loolu daal du bilan boo xam ne bu neex la daal parce que deux ak deux la deux défaites deux victoires muy lu doy waar daal waaw Euh, moom tamit ba tey Abou daal di ñëw ak Dibakor Sagne di ñu xamal ni nag euh, deux années yu mujj yëpp moom moo nekkoon li nga xam ne nii mooy euh, nu mu tudd champion du Sénégal. champion du Sénégal ñaari yoon ah Dibakor Sagne di xale espoir boo xam ne nii tamit yar na bàyyi xel ci làmb simple ji parce que mu ngi ci wane boppam yone boppam bu baax baax ci biir réew mi mel ni kon moom tamit loolu motivation lay doon ci moom et puis da koy war a mu gën a liggéeyaat que làmb moom boo commencé muy neex rek liggéey xam ne li ci kanam mooy gën a métti foofu li nga waaw dañuy jógee record dem fële nga xam ne ni mooy euh, l'observateur l'Obs daal di ñëw tey ak li nga xam ne ni mooy euh, Bébé Diène moom wax nañ ko fii keroog euh, l'Obs tam dellu siwaat ci carrière dina tey ji làmb am na mbër boo xam ne nii xale la bu am talent mais mu ngi bëgg compromettre li nga xam ne ni mooy carrière am waaw loolu daal liñ ci mën a xam mooy tey moom Bébé Diène xale la macha allah mën naa bëri wala mënta bëri kenn du lam-laame ak mën a bëri moo am fiitam wala doon jàmbaaram defe naa ku seetaan bëri ki démb mois de mars combat bi mu bëree ak ki nga xam mooy Fourrière defe naa ne ku dul jàmbaar mënoo bëree amoo xam-xam boobu bis boo ci duggee doo ci génn wala boo ciy génn defet nga cay génnaale donte kam doon bëreel démérité waaye wane na fa moom talent pire wane ko ci lutte simple bu ñëpp xam kan mooy Bébé Diène kon nag tey bu demee ba ñu yu mel ni ñu ko ci dégg ak yooyu ay affaire de ay agression yu mel noonu li ñu mën a wax daal mooy ñaanal ko yàlla yaa ngi dégg yàlla génne ko ci lii mu dellusiwaat ci lamb ji parce que ci la bokk te wërsëgam a ngi ci di wax tamit di ko wax lu wax parce que suñu rakk la suñu frère la di ko wax rek mu gën a moytu ndax euh, olof per Maxime Margan da koy faral di wax nee na borom borom benn bëñ ci gémmiñ day foŋ te weex waaw danga nga koy fonk ba pare di ko weexal te borom caq du bëreeg borom baatu neen moom lamb la am di ci talent war ci am dara tey ñu bëri bëgg ko ngir loolu kon na gën rek moytu àddina nag lu ñu wax sànq rek a ci nekk ah nit yàgg naa moytu ba tàyyi sax dara ñëw dal sa kaw waaye nag del moytu rek waaye li war a ñëw moom day ñëw ñu ko ñaan yàlla mu génn ci loolu ak jàmm quoi. démb tamit euh, waxoon nañ ci ki nga xam ne mooy Nicolas bi jëlee ko fay ca Saint-Louis yóbbu ko ca Thiès mais nag bi mu yeggee Thiès léegi dafa nga xam ne nii mooy pour li nga xam ne mooy liberté libération bi mu bëgg comme nee am na lu loo gis rek am na lu ko waral tamit. waaw maanaam liberté totale quoi maanaam dafa bëgg a génn waaw ñun daal li ñu xam mooy li moom comme lu ma doon wax laay wax rek parce que nit ki moom. Euh, booy wax si moom wax li nga xam dafay am solo te man yàlla dafa def ma xam si moom lu baax te bëri nañu ko xam si moom kantaan nag tey téye bi ñu ko téye mbiróom ak yoon la loola xëy na ñun mbirum yoon la dañuy bàyyi yoon mi yore yoon mu def liggéeyam parce que réew moo amee yoon noonu parce que réew mu ne dañ koy tëral ci ay sart mais am nañ droit ñun di ñaan ci yàlla mi maye di ñaan ci kilifa yi ñu dimbali ñu xam nga fexe ba euh, génn maanaam bàyyi ko ak ñëpp ñi nga xam mérito nañ ko parce que léegi tamit lu la waaye mën ta wax mooy euh, bokk na ci Sénégal te tamit participer na ci bu baax a baax ci réew mi kon ñu ngi ñaan yàlla daal grève de faim ak yëpp jeex ba mu génnaat ñëw ci làmb ji ndax ñun wax dëgg yàlla soxla nañ ko ak yeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi ci prison yi tey parce que prison yi man pour man dama naan hmm, ku mu maanaam ku ci yàlla tudd sa ab reer ko fa yi waaye la solo mooy que rek ñiy jàppaat ak ñiy jàpp nañuy fexe ba nga xam ne am na ci yan yoo xam ne daal pour man sax est ce que jar na kii comme tey asu ginaar goo for wala <laughs> nanga xam nga dafa doy waar daal mais ñu ngi koy ñaanal daal waaw waaw Pape Kër ñaan yàlla rek yàlla musal ñu ci parce que jommul kenn rek mais di ñaan yàlla rek mun ci musal à chaque fois ñu dem seeti ki nga xam ne mooy na dafa ñëw pour mooy moom Gaston yee waaw refe maanaam yee ténor yi ah am na solo waaw moom day bu ko waxee dinañ ko mën a gëm parce que defe naa ne tey euh, xanaa euh, buñ naan lu muy prouvé ci lamb dañ naan amatul waaye nag mën nañ koo xaar ci difficulté am mu ñëw décanté situation bi te tey bu ko waxee ci Dakar Dakar Times li ñu ñaan yàlla mooy yàlla ko yàlla dimbali ba mu mën a am loolu moom Gaston Mbengue parce que tamit làmb yàgg naa ami difficulté mu dekk ci di ci rayante di ci def lu xam ne ñëpp dañ ciy bëgg kon defe naa moom doon dëgg daal parce que tamit waa làmb soxla nañ ko te askanu Sénégal bi bëgg làmb à travers le monde soxla nañ tey gisaat ku mel ni Gaston ni Nicolaï sëñ Modou Niang ñoom Petit Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ñi fi nekk ñoom Aziz ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk actuellement ñoom Pa Abdou Fall di góorgóorlu ñu ñëwaat affaire yi gën nekk mouvementé gën waaw daw dafay am solo trop Aïcha ñu jeexal Babacar ak Leewtoo point net ñu fekk fa ki nga xam ne ni mooy Ambroise Sarr mu ñëw di li nga wax ci mooy les Jeux de la francophonie war a am euh, fecc euh, République démocratique bu Congo en 2021 Ambroise nag di ñëw ci ay lion parce que bi mujj bi amoon Côte d'Ivoire am nañ 9 euh, médailles sur 14 médailles d'or yi léegi nag nee na moom am na ba tey yaakaar ci li nga xam ne ni mooy xale yi mu war a yóbbu yooyu noonu 9 médailles ci 14 de boo ko jëlee defe naa waawale xanaa 5 nga fa bàyyi kon yaakaar naa Ambroise moom ñu koy ñaanal yàlla rek jeux yooyu nga xam ne moom la ñuy waajal ci 2021 yàlla nañ ko fekk te tal ko mu mën ci participer ak équipe nationale du Sénégal mën a indiwaat médailles yi bi yoon sax yàlla na indi 14 médailles yëpp bu dee loolu lañ fa teg parce que moom itam defe naa ne mu ngi bay waaram ci équipe nationale ci wàllum lutte simple bi nekk entraîneur bu nga xam ne vraiment ba mu yor équipe ba tey équipe bi mas sa baax ak waaw Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy euh, internet yi suivre Leewtoo TV ñu leen ñaanal euh, jàmm bu baax fu ñu mun mënti nekk di ko sàkku si ñoom it di ñaan euh, yàlla musal ñu rek muccal ñu ci jàngoro bi comme ni ñu koy ñaanee à chaque fois mais nuyu sama borom kër di nuyu samay képp koo xam ne rek yaa ngi fii di suivre Leewtoo na solo lay demee di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm rek xam nga di nuyu gars yëpp soppe xam nga ñuy topp ci YouTube bi di ñu seetaan di ñu bind ay message di commenter vidéo yi amuñu seen fay xam nga ñoom ñëpp ñu leen ñaanal jàmm ñoom tuuti yaay Sarr Abdoulaye Mbaye xam nga Youssou Ndoye tamit maa ngi koy nuyu basketteur xam nga di nuyu képp ki nga xam ne daal yaa ngi suivre ak Habib Ndoye ca États-Unis d'Amérique xam nga ñoom ñëpp maa ngi nuyu di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne daal Aïssa encore une fois rek li nga xam ne nii mooy suñu réew mi yàlla na yàlla def corona bi jóge fi waaye jóge si àddina bi mu ne delluwaat suñu activité normale di ñaan jàmm di ko yéene ñëpp barke yonent bi sallallahu alayhi wa